Comment ne pas apprécier un geste fait de désintéressement en islam Cet appui est considéré comme un acte hautement social au village de Kuryaman des dans la région de Louga.

ñi nga xam ne ñoom la jaar ci seen loxo ba ñu ñëw ci nun te waa Sokke yu nag moom barakallaahu ah kontaan nañ ci lii ndax kat nit képp ku la defal loo mënul boo dee nita war nga ko sant te liñ ñu defal mënul na ko ndax buñ ko doon cotisé fii yaakaar naa daa am ay at di ko cotisé te du mat ki defal defaloo ko te laajuloo ci dara waaye waaye gars loolu koy wax dëgg yàlla ngir yàlla mënu ko passé ñun daal ñoo ngi leen di sant di sant ki nu tax nu jot ci di sant ñi tax ñu nu jot ci di sant nag ñi nga xam ne ñoo am seen alal nag wëlbati ko joxe ko ba mu yegg ci ñun kon ñëpp ñoo ngi leen di sant nag te di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal ak yokkute di leen ñaanal yiw waaw barakallah barakallah barakallah bare na neex na waaw bare na neex na ah noo leen balu ak nak ci déplacement bi ak ci coono yi yëpp noo ngi ci balu ak nag di balu ak nag ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu di sant ñi nga xam ne ñooy waa sàkku yiw te xam ne li ñu def moom lu am solo la te defe nañ ko it fi ko ngi di ñaanal yàlla liñ ci sàkku ci lu baax ak yiw ci soxna si ñu koy defal yàlla na ko fekk ci bàmmeelam yàlla na seral yàlla yokk yiwoom ah te xam ni it li ñu def fi ñu ko defee soxla nañ ko fi lool tubaarkaala ndax ay néew doole lañu ah ñu bëgg a liggéey lañu ñu sonn lañu itam kon buñ leen indi leen ndox mi nga xam ne yombu leen ah ñu seenu ci liggéey seenu ci leneen ñu ngi leen di sant te di leen ci gërëm ah di leen masawu coona di la xama ne itam kontaan nañ ci torop torop kontaan nañ ci loolu wax dëgg yàlla de amoon nañ jafe-jafe ndox torop ndax uh, fu ñu roote jaaxaloon nañu bu ñu mësaan dañuy génn di rootaani teen yi sore na trop ba tax na yaakaar naa ne tey kontaan nañ lool ci teen bi ni mu nu jegee bu ñu bëggee ndox dana yomb lool ah, ndax ndox mooy lijjanti doomu aadama te ndox lu fi jafe woon la kon noo ngi sant yàlla di leen sant bi ngeen xam tey ndox mi jege nanu yi fi yomb na trop ba tey daal kontaan nañ lool kontaan nañ fa kontaan ma a yem di leen sant te di leen gërëm Des prières ont été formulées en faveur de Au Pain et Sourire, marquant ainsi son empreinte partout au Sénégal et au-delà. La question environnementale est aussi intégrée dans la démarche, coïncidant avec la célébration de la journée mondiale de l'arbre. Partout, l'acte symbolique a été posé pour marquer cette journée, une autre dimension en islam, saluée à sa juste valeur.